waa asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax euh, di wax euh, ngeen wéy di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal di ngeen bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like di commenter ak partager loolu ngeen ñu mën a jàppale bu baax a baax donc tey dañuy ñëw waaw def ay leeral ci image yi ngeen di gis ci ci ci vidéo bi donc image yi nag je pense que ni bërki démb la woon ci match Al Nassr ak nga xamante ne mooy Al Riyad donc ci diggante Cristiano Ronaldo ak Sadio Mané ñi naan euh, mën nañoo wax saajo Mané ak Cristiano Ronaldo actuellement dañoo nekk en guerre ñi weddi ko ci euh, parce que ci action boobu noonu euh, Cristiano Ronaldo dafa def une magnifique passe boo xamante ne daf ko jox saajo Mané Sadio Mané après Sadio Mané seul face au gardien Sadio Mané gaspillé action bi donc après nag donc. Euh, ñu Cristiano Ronaldo yooyu gis ko mu xawa euh, mer mais dañ ci andi ay leral parce que ñu bari dañuy wax euh, Cristiano Ronaldo ci action bi Sadio Mané yàq la mer alors que du lolu parce que Chris dafa dafa daw attrapé bal bi ci ligne bi nga xamantene moy sorte sortie de bi donc bi attraper, ko attrapé nag daal koy euh, arbitre bi daal di daal di siffler na bal bi jénn donc loolu nag la doon réclamer arbitre bi et tout donc ñu bari jàpp ko ne Sadio Mané lay wax mais entre Sadio Mané Cristiano Ronaldo dara.